ñëw ngir ne luñ dund la luñ bëggu la te luñ bëgg a yeggali suñuy ñesat la loolu moo tax ñu nekk si suñ jeexalee li ñu ngi dugg si leneen am nañ ay series yu nga xamante ni bind nañ ko tegee na am nañ lu nga xamante ni mooy tolof tolof am na benn jamono sax ah, QTV pere nañ pour jox ñi one hour loolu jamono manager bu ñoo wax anaan moo fa nekkoon waaye ñu gis ne Euh, olof bi tam Gambia dafa mel ni xal naa des because ñin Gambia si suñ film si luñ dee gën a def mooy angale bi yaa ngi dégg pour léeg-léeg dina jafe lool pour series nga am ñi bëri ñu nga xamante ni dinañ la mën a làkkal olof bi si film industry bi waaye nag as a director as a filmmaker yàkkamti bu mu tax nga génnee lu nga xamante ni su génnee si télé bi ñëpp duñ ko naw kon il faut nga teey bu ma demee ba nga xamante ni lu ma bugg si film bi jotaguma ko ma taxaw ne il faut nag ma xaar ma teg suma time su ma amee lu ma bugg ma soog a produce loolu waaye nag am neen ay scénario yu nga xamante ni luñ bind la because ñun dañ miin ne bala ñuy def fiim dañ koy bind teg caractère bu nekk dañ lay jox loo war a wax loo war a def nga xam ne dafay yomb am na su génnee nit yi dinañ ko naw dinañ ko bëgg di ko seetaan loolu daal mooy mbir bi. dëgg la rafet eh, macha allah Pa Modou du Modou yow suma doom nga sax waruma laa wax dara ndax man suma boy bi Pa Modou la tudda ah <laughs> kon nag ñu bëggoon a xam eh, suma last question ñu jox li nga xamante ne mooy lengee buur géwél lan moo la inspire for the first time instead of doing any other thing nga def film daay nga def film ba pare nga directal ko sa boppa waaw comme man depuis bumastati ma wàllum théâtre in 2012 Damadan bindal Boka Jeff Drama Group amana bu ma door door bees la woon du direct because experience bi nekkul fa waaye dama daan binda moo fa jógee bind naa mu nga xamante The Great Big Three Kingdom nga xam Black Queen sax bokkoon na si fi boobu ba mu génnee ñu bëri dañ doon wax ne du Gambien film sax Nigerians la te boobu tam man maa nekkoon assistant directeur bi koko directeur moo nekkoon boo Bojang gannaaw bu ma jógee foofu bi beneen film bu ñuy wax family dispi naka di ah, sentiment bu ma bindee di sentiment sut naa ko waaye jekkaliwu ma ko xam naa ne projet bi tam mu ngi fa bu ma fa jógee laa ñëw maa binda family dispute bi maa ko direct am loolu yëpp dama gom ne man lu ma bëgg man maa ko mën a jox suma boppa man su may bind fiim dafa mel ni maa ngi koy seetaan so nu ma ko bindee man dama yaakaar ne man kenn maa ko mën a direct ma am lu ma bëgg yaa ngi dégg mhm. because film su fekkee yaa ngay bind film te yëguloo sa boppa melut ni yaa ngi seetaan film bi si boppam kon yow loo bind baaxut ak bindkat bu mu mun a doon su fekkee ne yaa ngi bind te yëguloo sa bopp bàyyi ko su fekkee ne tam yaa ngi fiim te ñuy fiim kontaan ñu seen bopp si fiim bi xamal la yow lay fiim des na waaye yow mu ko fiim nag yow nga xamante ni yaa ko fiim te di ko gis nga yëg si sa boppa ana ñu nga xamante ni suñ ko gis ñu toog war koo seetaan te ñoom mhm. fiimuñ ko mhm. kon su fekkee ne yaa ngi fiim di si yëg sa bopp dan yow xamal na looy fiim baax na am na dara te man nag yëg-yëg boobu laa am moo tax maay bind suma fiim maa koy daaregal suma bopp waaye nag suma family dispute bi kii di suma wife moo ko produce amaana ma doon producer doon directeur doon writer mm-hmm. amaana sax awma xaalis bi sax pour di ko di ko produce waaye suma wife step in xam nga moom fii mbékka la mm-hmm. si la nekkoon si loolu laa ko gis tam ma takk ko si loolu su ko defee mu ñëw nekk suma producer ah. macha allah tontu yi leer na eh, duñ def lu moy rek jol jël lenge yi dénk ko buur gewel eh, du ma ko jox blag nak man xamna blag blague affaire am xam naa fi nekk gémmiñam jangé raf waye duma ko ko jox buur yow la denk lenge yi yàgga yàgga dinaa ñëw waaw balaa balaa ma koy dénk euh, nu du tudd buur géwél sax xaaral ma dénk ko Black Queen ah. euh, parce que dañoo tàmm euh, bu ñu waxee dara ci olof dañuy dañ koy faram-fàcce ci li nga xamante ne moom mooy mandinka